di wax na rek ci turu autorité yi njëkk ci président de la république chef de l'état ak euh, ci ay directive euh, monsieur Serigne Mbaye Thiam ministre de l'assainissement ñu ñëwoon fii pour nemmeeku li nga xam ni am na fi mooy station de pompage bi nga xam ni moom la ñuy wax station de pompage donc euh, de refoulement de Kër Niang mu am jafe-jafe mu fees ba li nga xam ni mooy ndox mi dugg ci biir kër yi métti na lool donc di wax ne rek euh, ñu ngi partagé li nga xam ni mooy métti métti bi ci population bi li ñu jànkoonteel euh, métti na parce que da nga koy wax ne rek su doon yow su doon say mbokk donc ci noonu ngay mun nan la ñuy mesurer li nga xam ni yëg nañ ko par rapport ak li ngeen yëg donc di wax ne rek euh, di remercier vraiment les autorités territoriales le gouverneur les préfets nga xam ne toujours ñoom ñooy njëkk a ñëw. donc pour au chevet des population di remercier service sapeur euh, le service sapeur pompier ñoom aussi taxaw di trouver solution par rapport ak situation bi donc euh, remercier aussi service de l'hygiène donc ñun euh, li ñu fi tax a ñëw mooy sunu devoir et di assumer nag lii fi nekk mooy en fait responsable état parce que station de pompage bi waroon na peut-être xool nag lañ koy étendre mais di wax ne rek yàggul étendre nañ ko en 2019 2020 am dañ koy yokk donc te yokk boobu day day continuer te ñoo ngi ci pour ñu gën ko yokk nga xam ni li nga xam ni mooy ndoxu ndoxu ndoxu taw war ko drainer mu ñëw fii ñu xool nañ ko koy gérer naam ah loolu jafe na lool mais dañu xool dans un premier temps comme solution ñun ONAS Touba ci kanam mairie ak projet Promoville ñu xool naka la ñuy réfléchir naka la ñuy euh, càmbare li nga xam mooy réseau de drainage des eaux pluviales suñ ko xoolee ba pare ñu xool naka la ñuy euh, bloqué euh, ndoxu taw boo xam ni mën na dem ci ci koñ yi te dugg dugg ci kër yi mu dem ci tali yi te dugg ci kër yi mbedd yi te dugg ci kër yi ñu bàyyi foofu am ndox moo gën ñu bàyyi kër yi kër am ndox ci loolu dañ ci liggéey ci ak sunu naataango yi beneen bi mooy ñu xool naka la ñuy yokkee capacité pompage bi en quoi faisant donc mur bi dañ koy gën a yëkkati mais avec une assurance bu am sécurité ba nga xam ni ndox mi déjà donc su demee ba nga xam ni euh, ndox mi mën na yokk en capacité donc ñu def loolu pour que quand même li nga xam ne dafay ñëw mu gën a mu gën a rester sur place donc ci côté boobu je crois que suñu jógee fii dañ ci taxaw nu mu gën a nu mu gën a gaawee beneen bi mooy ñu mettre en place benn dispositif d'alerte parce que je crois que dispositif alerte boobu su amoon am na bassin fu mu toll niveau bu mu toll su alerté donc population bi dañu teel a yëg affaire bi pour jéem a faggandiku problème ba am te loolu à partir d' aujourd'hui je crois que système d' alerte bi ordonnance dana ko fi teg nga xam ne ñi fi nekk ñu yombal leen liggéey bi parce que bi ñu demee ba nga xam ne affaire bu débordé na ah il fallait voir li nga xam ni mooy inquiétude ki fi nekkoon jaxle ñëw di fëgg kër yi di wax ne kat lii mënatuma ci dara donc dafa nekk loo xam ni lu xaw doy waar la donc tiré nañ ci leçon ba nga xam ni am na loo xam ni dañ ci jël ay. ay décisions ay mesures yoo xam ni pour ñu mesurer loolu. li ci des mooy je crois que ñu xool naka la ñuy euh, yokkee capacité pompage yi donc pour ndox mi nga xam ni moo nekk fii ñu gën ko gaawal yóbbu au niveau du bassin de stockage ci loolu dana tax aussi ñu yokk aussi capacité donc de refoulement mooy tuyaux yu jëm directement ci bassin wax Rahmane stockage boobu. te suñu demee bassin bi aussi il faut foofu aussi ñu yokk ko ba nga xam ni ndox biy ñëw foofu ñu ko stocké foofu foofu foofu ci euh, Darou Rahmane donc système boobu foog ñu sëkkandiko pour trouver une solution par rapport à à cette gestion donc provisoire li ci des mooy euh, de façon matériel bi ñu àndal donc ñëw nañu andi nañu aussi trois pompes parce que bi ñuy ñëw dañuy wax ni kat li ñu xalaat naam station bi la mais sinistré ci la bokk moo tax ñu ñëw ak deux pompes moto ak benn électropompe boo xam ni donc 400 mètres cubes par heure pour au moins ñu jox ko à la disposition du préfet donc à la disposition donc des brigades sapeurs-pompiers pour ñoom ñu mën a accélérer pompage ndox mi donc mu mën a ñëw fii ci ci bassin bi nu mu gën a gaawee nu mu gën a kooku mooy priorité numéro un donc pour nit ñi gën a vraiment ñu ndox mi génn seen seen kër yi maintenant li ci nag mooy à à long terme parce que mën nañu xool Touba étant la deuxième ville du Sénégal donc mu am benn bassin principal mu am benn bassin stockage donc war nañ xalaat ni kat. am lu des moo tax bi ñu ñëwee fii euh, yàggul lool defoon nañu benn atelier partagé li nga xam mooy plan directeur d' assainissement mu xayma lépp loo xam ni mooy assainissement bi war ci Touba muy ci ndoxu ndoxu taw yi muy ci ndoxu gànnawaay yi plan boobu ñu partagé ak acteurs yëpp ak waa mairie ak ñëpp ak euh, les autorités ba ñëpp xam ko mais li mu wane mooy il faut à Touba ñu am ay bassin de rétention au moins quatre yoo xam ne de par et d' ñu def ko fa. ndox yi mën a répartir carrément dispositif yi muy àndal mooy station bu mel ni yeneen station yu ndaw yi yeneen ak vraiment de drainage yoo xam ni réseau yu yu ko kooku nag c'est à moyen long terme ñu ngi ci am ay requêtes yoo xam ne togg nañu ko pare li ci des mooy autorité ak partenaires financiers yi ñu accompagner ñu pour li nga xam ni mooy projet boobu mu ñu mën ko ñu mën ko teg sur place donc di wax ne rek ah autorité yi ah plus euh, ci ci ci nga xam mooy autorité principale mooy chef de l'État donc mu ngi. en quelque sorte wax leen ni préoccupation Touba comprise de toutes les villes donc moo moo nekk ci boppam donc et ci la ñu nekk ñu ñuy jox li nga xam ne mooy assainissement ci la ñu nekk nekkuñ ci leneen te surtout loo xam ne aussi dañuy war a am obligation waxtaan ak askan bi ñi nga xam ni ñoom moom li nga xam ni ouvrage yi lañ leen defal muy mbirum eaux yi comme mbirum eaux usées yi donc moo tax lii ñu fekk fii ñu ngi koy rafetlu bu baax ñu déglu leen wax seen njàqare te ñun aussi ñu partagé ko parce que ku ci nekk da ngay yàq da ngay mën nga xam ni li mën na la dal mën na dal sa mbokk donc di wax ne rek partagé kon ak yen donc moo ñu war di wax leen aussi euh, di leen ñaan ngeen accompagner équipe bi fi nekk équipe bi fi nekk dañ leen dënk pour ñu sécuriser li nga xam ne station de pompage mooy li nga xam ne mooy dispositif pompage bi mu fonctionner 24 heures sur 24 euh, relais yi nga xam ni ñoo fi nekk. nekkuñu rek ci station pompage ci différentes stations de pompage nekk xam moo nekk ci Touba ñoom aussi ngeen jàppale leen ci fi ñu fi nekk ci fi ñu donc euh, les comités peut-être wax Touba ci kanam ak euh, la mairie accompagner dispositif donc de gestion ouvrage yi euh, vraiment ñooñu ñu ñu jàppale ñu ci li nga xam mooy gestion ouvrage donc dañu waxtaan aussi ak Touba ci kanam commence nañu waxtaan donc vraiment avec un engagement fort de Touba ci kanam Promoville toujours ñun état la dañuy waxtaan par rapport ak li ñuy wax cartographie li nga xam ne mooy réseau bi ñu xool naka lañ koy gën a exploiter pour li nga xam ni mooy gestion eaux pluviales lii bañ fa amati.